deux décédés, un évacué et donc 113 sous Le ministère la Santé l'Action sociale exhorte les populations au respect scrupuleux des mesures de prévention individuelle et collective. maa ngi ñëw jottali leen communiqué numéro 44 du talaata tey bii fukki fan ak ñeent ci weeru avril 2020. ministère la sent action sociale jot na résultat virologique yi nga xam ne maa ngi leen koy jottali ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test réalisé juróom-ñett ñoo dellu si positif yooyu ñu ngi leen koy tegtal ci juróom-benni cas contact yi nga xamante suñu service yi ñoo leen di saytu ñaari cas yi nga xamante ne ñoom ñu ngi jóge ci transmission communautaire. juróomi malaat yi nga xamante ne ñoom ñu ngi leen enterré ci suñu hôpital déclaré nañ leen négatif te wër nañu seen wër-gu-yaram mu ngi am tànn ci bésu tey bii ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas ñoom lañ déclaré positif ci Sénégal ci yooyu ñu ngi ciy génnee ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett yi nga xamante ne wër nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu donc li nga xamante ne moo des mooy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñett yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ministère la santé et de l'action sociale bu Sénégal mu ngi ñaax askan wi ñu doolee topp li nga xamante ne moom la ñuy wax mesure de prévention individuelle et collective mooy li nga xamante ne moom lañ mun a aar. saa su la ngeen di am yu am solo yuy bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer